almahdiyyin abi bakrin wa omar wa osman wa aliin kon mbokk yi ñu tubb baat yu sell di baatu nuyu nuyu islam bi nga xamante ne moom mooy tahiyatu ahlil jannati fil janna te mooy asalaamualeykum wa rahmatullah sant nañu yàlla jalla jalalu wa azza kamaalu julli ci sa soppam ba nga njibindeef yonente bi ak waa këram ñaanal ngërëmuk yàlla mu sax dàkk ci saxaaba yi rawatina ñeenti xalifa yi di abi omar usman ali ak mbooleemi saxaaba yi rek kon mbokk yi ñu ñëwaat ak yéen ci tajwidul quraan bi nga xamante ne ñu ngi ko jàng doon jàng ak yéen di ñaan yàlla subhanahu wa taala lépp lu ci nekk ci leer ci barke yàlla na yàlla defal defal ko mbooleem julit loolee moo envoyé loolu gis ngeen ko mooy maddul iwat kon taay ñu ngi ci madda yi madda muy xëcc kon xëccuk eh, weccaxndiku al iwat iwat mooy weccee mooy dafa am li fi nekk loo xamante ne da nga koy ak leneen ndax règlement bi loolu loolu lay laaj moo tax mu ne wa huwa alladi mooy madda bi nga xamante ne mooy xëcce bi nga xamante ne yaati day ñëw ay iwadan ñu weccee ko anit tan anil fatxatayni ci ñaari fatxa yi ñaari fatxa mooy ñaari maska nga fekk ñaari fatxa yoo xamante ne dafa nekk ci e, baat bi ci fin bi nga weccee ak leneen lu dul ñoom ñaar maanaam bu dee ñaari maska la nga jàng benn maska ba rek moo tax mu ne wa huwa alladi yati iwadan anil fatxatayni fi axiril kalimati ci mujjantalu baat bi ci mujjantalu baat bi ban baat al maftuha bi nga xamante ne dafa am masque fatha loolu nag mooy su fekkente ne isa ja isa waxaf naa bu ñu taxawee alayha rek loolu mooy condition bi su fekkente ne daal mun nañu appliquer loolu mu jàll mooy su fekkee dañ cee taxaw rek mais ñu ci taxawul rek dangay jàng ñaari masque yi ba tax ma ne isa waxaf naa ci kaw sart bu ñu taxawee alayha ci kaw baat ba baat bi am ñaari fatha yi ñaari masque yi ci kaw mooy ñaari yat yi ñu koy tuddee maskawiyat kon bu ñu taxawee ci kawam noonu rek dañuy lañ fa fekk ci ñaar maska dañ koy soppi jàng ko benn maska moo tax mu ne mislu comme lu mel ne ki baat bii mooy binaa binaa baatu binaa xam nga binaan la mais binaa lu ko nga wax binaan kon da nga yàq poésie bi waaw ah, dañ koy jànge binaa fi qawlihi ci waxam nga taala moom mu kawe baada auzu billahi min saan rajim wasamaa binaa li ko binaan binaa mu ne fa haasihi aaya bii wala misaal bii ma indi ci aaya bi wa amsaaliha ak yi nu mel tu des na ko ñoddi des na ko xëcc bi miqdaari xarakatee ne ci lu toll ñaari xaraka ñaari xaraka nag bu ñu la ko waaye rek mooy ñaari seconde wala nga bank sa ñaari baaraam diiraa bi nga yëkkati bi yëkkati beneen ba diiraay boobu mooy bi miqdaari xarakatee ne indal wàq fi ci buñ dee taxaw mu ne naquulu dinañu wax yi may indi ci ay misaal ci ay aaya بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نجعل الأرض مهادا لكم مهادا مهادا والجبال أوتادا ولكم أوتادا من أوتادا وحلقناكم أزواجا waaw ay yi nga xamante ne daal day benn masque bi ngay jàng taj tajwid loolu lay laaj eh, rythme bi loolu lay laaj eh, règlement bi loolu lay laaj parce que dafay nga respecté ko noonu incha allah yaakaar rek ne saa woo ko jàngee noonu nga rafetal ci yéene yàlla may la yoolu ko jàng alquran te ñu ñaan yàlla musal ñu ci ñi nga xamante ne yonent bi nee na ci ñoom bëri na ñuy jàng alquran alquran di leen rëbb ak bëri ñuy jàng alxuraan te fekk alxuraan mu ngi leen di su booxut ma la ñooñu nag dama yaakaar ne xëy na seen yéene sax rafet na waaye ni ñu koy jàngee moo tegul ci fi nañ ko war a jànge loolu nag yàlla na ci yàlla musal musal ci sunu njaboot musal ci jullit yëpp nag loolu baaxul nga jàpp ba seel la set wicc tim alxuraan di jàng alxuraan di la moom kooku jar na ñaan yàlla jar na muslu ci yàlla yàlla na ci yàlla musal kon mbokk ñi yem foofu rek incha allah ba prochaine ñu awax ci leneen yàlla na yàlla defal dégg topp rek ñu ngi nuyu mbokk yëpp rek jullit yëpp rek ñu bokk ci groupe bi ñu jege ak ñun sori góor ak jigéen mag ak ndaw yal na yàlla fay leen rawatina sama naataango yi nga xamante ne ñu ngi fi wàccee leçon yi am solo yal na yàlla def ko seen téere jëf macha allah da ngeen jëf.